asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit di mbokki taalibe yi naafile bi tey bi muy ñaar fukki guddi ak ñeent ci weer Ramadan naafile bi juróom-benn raakan lay doon raakan bu def Faatiha benn yoon xul huwallahu ahad ñetti yoon. juróom-benn raaka raaka bu dee faatiha beneen yoon xul wallaahu ahad ñetti yoon yàlla nañ suñu borom defal taw barke Cheikh